jamono yi ñu génn ñu bëri wax nañ fi wàllu ay concert de casserole ak yu ni mel de casserole fii ci Sénégal ñun ñi ñoo ko njëkk def mais il est essentiel ñu leeral leen ci ban contexte la boobu dañoo nekk université mu nekk 1988 mu am état d'urgence ak couvre-feu ci jamono boo xam ne kenn amuloon accès ci médias yi booba Sud Hebdo moo fi nekk Sud nga xam ne hebdomadaire la woon Walf mensuel la woon politicien daf doon génn à l'improviste mooy mën na toog ba mu yàgg mu génn mën na toog lu yàgg du génn télé amu fi woon rajo amu fi woon bu dul bu état bi yor euh, yeneen journaux amu fi woon waxaale wu ma nag téléphone ak internet loolu amu fi woon donc su fekkee ne donc jóg nañu ne suspendre nañu l'ensemble des libertés individuelles et collectives ba pare def couvre fa jamono boobu seul moyen bu ñu amoon te ay étudiants la ñu woon c'était justement ñu def concert de casserole pour ñu yëg ne am la ñu naqari surtout que jamono boobu pratiquement tous les leaders de l'opposition tëjoon nañ leen hmm. voilà ce qui s'était passé à l'époque à l'époque daanañu jóg di def manifestation à l'université comme ni ko nit ñi tàmmee daan bloqué euh, euh, avenue Cheikh Anta Diop boobu route de Ouakam la tuddoon mais bi ñu demee ba jëmmi jamono gis ne bu ñu ko masaa di def nit ñi nga xam ne dañ daan ami soxla bëgg a dem ci lijjanti yooya du ñu mën a dem ñu toog ba mu yàgg te ñooñu mën a am ñun la ñu faral te du ñu comprendre puisque amuñoon woon accès ci médias yi pour leeral leen ñun nañu taxaw ci ñaari côté tali bi nga xam duñu empêcher kenn mu dem mais dañ daan taxaw ci ñaari booru tali bi nga xam ne ñëpp dañuy romb gis ne am nañ lu ñu naqari du ñu gaañ du yàq du ñu toj du ñu def leen loolu aussi réalité la pour wax ne dañ doon adap adapté wu ci model bi nga xam ne suñu jur yi ak ñi ñu bokkal Sénégal daanañ ko wax am nga droit wax ne lii neexu ma li nga amul droit kay mooy nit ki nga xam ne mi ngi dugg ci oto xëy na peut-être am na ku feebar xëy na peut-être am na lu muy wuti loo xam ne mën na ci jox waa këram ñu dund yow nga ne ko doo jaar ci mbedd mi nga xam ne fa nga koy amee ji parce que simplement man am naa lu ma naqari loola nag mooy li ñuy wax ne ñoo euh, ñooñu nga xam ne ñoo gisee noonu ci biir Sénégal dafa jaadu ñu waxtaan seet naka la ñuy fexee benn ba élection yi am ci date bi mu war a am état bi wàllam dina ko def mais dafa baax ñi nga xam ne c'est des acteurs politiques ou des acteurs de la société civile ou mu doon ñenn ñoo xamee ci biir Sénégal mën nañ fi am kàddu mën nañ fi am baat ñooñe ci boppam ñu sàkkoo ci ñoom euh, doxalin ak kàddu yoo xamante ni day gën a dalal Sénégal te day permettre foofu ñu jëm ñu àgg fa ak jàmm